bu dee ku bees nga ci chaîne bi ñu ngi lay ñaan nga abonné te nga bës cloche de notification bi jaajëf. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di bégg di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di ñëwaat ak yéen ci seen vidéo bu bees ci FCFM TV ah, tey nag ab dialogue lañ leen di jox dialogue bu dox ci diggante Xaadim ah, ak Adama dialogue mu ngi tudd tu viens avec nous waaw tu viens avec nous. léegi dialogue boobu lañ fas yéene doxal tey euh, kon bu defee ñu dox ci euh, li nga xam ne mooy dialogue bi. bu defee kon ñu ngi tàmbale ci nuyoo mu ne Sali ça va Xaadim mu Sali mu nuyoo daal ne ko ndax na nga dama ne ko oui ça bien oui. ça va bien maa ngi jàmm baax yow nag ça bien et toi nag maa ngi jàmm bu baax yow nag Xaadim daal tontu ne ça va bien nous partons en vacances mu ne ko man ngi jàmm bu baax ñun de dañuy dem vacances Adama tontu daan ne daan ne quel sens où est que vous allez mu ne ko ndaw sens loolu de sens la. na ko wax fu ngeen jëm où est-ce que fu ngeen jëm fu ngeen jëm fu jëm la ko laaj Adama moo ko laaj loolu ne ko léegi kon ne ko loolu kon sens la daa koy laajaat benn laaj ne ko où est-ce que fan ngeen jëm léegi mu daal di tontu Khadim daal di tontu ko nous allons au Sénégal nous allons au Sénégal donc ñun ñoo ngi jëm Sénégal Adama daan koy to Adama daan ne ko Adama koy laaja daan ne ko ah c'est super comment est-ce que vous partez en voiture en train en avion mu ne ko ah loolu de lu neex la mu ne ko nan ngeen demee maanaam yéen moyen ngeen utilise bu ngeen dem mu ne ko euh, avion ngeen di jël mu ne ko voiture ngeen jël maanaam woto wala train wala avion mu ne ko yan ban ban euh, kii ngeen utiliser bu ngeen dem comment est-ce que vous partez nan ngeen deme yan ban transport daal ngeen utiliser bu ngeen dem kon ndax oto ngeen di jël wala euh, train wala avion. léegi Mourad tontaat Khalida tontaat daan ne on part en avion c'est pile agréable on a pile de li on a liberté pour visiter mu ne ko bu ñu dem avion lañu jël ndax moo gën a neex am nañ temps bu bari ngir mën a visiter maanaam wër bañ jëm waaw mu ne ko Adama daal di daal koy laajaat daal ne ko où est-ce vous allez exactement où est-ce que vous allez exactement où est-ce exactement mu ne ko fan ngeen jëm fan ngeen jëm dëgg-dëgg maanaam fan ngeen jëm dëgg-dëgg xam nga fay da ko tontoon ne ko Sénégal lañ jëm waaye Sénégal rek mu tonte loolu des na daa desay leer xaraw laajaat ne ko fan ngeen jëm dëgg-dëgg léegi mu tontu xam daa tontaan ne ko nous allons à Dakar C'est une magnifique, c'est une région. Nous allons à Dakar. C'est une région magnifique ñu ne ko Dakar lañ jëm région bu rafet la Adama daal koy laajaataan ne ko vous allez à l'hôtel vous ndax da dem hôtel waaw fee da ko tontu ne ko Dakar lañ jëm ndax région bu rafet la Adama laajaat bu ne ko vous allez à l'hôtel ndax ndax da dem hôtel xaadim daal di tontaat naan na ko non pas exactement nous allons dans une petite pension une belle maison un jardin et une piscine mu ne ko déedéet jëmuñu euh, foofu foofu de jëmuñu hôtel de ñoo ngi dem euh, ci benn pension boo xam ni dafa am maison bu rafet dafa euh, kër gu rafet am jardin am tamit piscine Adama dal koy laajaat ne ko quel sens Fallou et Salif ne viennent pas avec vous avec vous mu ko loolu de sens la ne ko ndaw sens quel sens ndaw sens mu ko Fallou ak saalif ndax euh, dina ndax duñ duñ ñëw ak ak yéen ne ko laajaat ko Fallou ak Salif ndax ñoom duñ ñëw ak yéen Fallou ak ndax ñëw ak yéen. boo ko léegi mu tontu xaadim daal tontu ne ko si waaw waaw ils viennent avec dañuy ñëw ak ñun mais ils vont d'abord ak géejawaay waaye dañuy njëkk a dem géejawaay ils viennent au il vient au Medina juste après mu dinañ ñëw Medina après après daal mu géejewaay daal lañ njëkk a dem waaye après ñu dem Medina ñëw Medina Adama daal koy laajaat ne ko alors quand est que vous ne ko léegi nag kañ ngeen dem que vous partez alors quand est-ce que vous dem kañ ngeen dem. kañ dem daa bëgg xam léegi wan bis lañuy dem waaw léegi waaw ñu daal tontu mu ne ko on part samedi matin ne ko ñoo ngi dem euh, suba euh, ñoo ngi dem ñoo ngi dem samedi ci suba gi samedi ci suba gi lañuy dem waaw ah, kon nag samedi ci suba gi nañuy dem on part samedi matin Adama daa koy laajaat ne ko eh quand est-ce que vous revenez et eh, quand est que vous revenez waaw ko mu ko ta ta ñëw nag kañ ngeen ñëw kañ ngeen di dellusiwaat kañ ngeen di dellusiwaat nga ko laaj quand est que vous revenez. léegi Xaadim daa koy tontaat ne ko. on revient dans deux semaines alors tu viens avec nous xandaan ne ko dinañ mu ne ko euh, fekk ñaari semaine daal la ñuy ñëw waaw mu dee daa amee ñaari semaine la ñuy dellu si mu ko léegi léegi nag euh, ndax da ngay ñëw ak ñun ndax da ngay ñaari semaine daal lañ fay def waaw bu ñu defee daal la ñuy ñëw mu ko léegi nag ndax da ngay ñëw ak ñun Adama daa koy laajaat. ne ko je voudrais mu ne ko je voudrais mais bien euh, je travaille ne ko bëggoon naa ñëw de waaye damay liggéey je voudrais bien mais je travaille ne ko bëggoon naa waaye damay liggéey kon foofu la dialogue bi yem kon vidéo bi foofu lay jeexe waaw ñu ngi leen sant di leen gërëm euh, am contentement ci teew gi ngeen leen wax ngeen abonné gum ngeen abonné euh, di leen jox dig daje ci beneen vidéo jërë jëf. bu ku bees nga ci seen bi ñu ngi lay ñaan nga abonné te nga bës cloche de notification bi